ci atum 2016 lii di nappi gi ci suñu réew doon indi lu toll ci 397 871 tonnes ci ay jën doon jàmmaarloo ak lu toll ci 89 564 tonnes ci pêche industrielle loolee la programme régional de renforcement de la collecte des données statistiques des pêches bu UEMOA xamle xayma yooyee war a wàcc bu baax ndax rekk ci atum 2023 war nañu xaar lu toll ci 75 000 tonnes boobule secteur nga xam ni téeméer boo jël fukk yi ak juróom-ñaar ca la ñuy yëngu fi mu toll nii bari na ay benke ñenke lool napp gu bari gi njeexitalu yàqute aalam gi wala sax pêche industrielle tey jii lool ak lu mu ci mën di doon napp gi fi mu toll nii daanaka jariñatul dara ña nga xam ne ñoo koy liggéey te it ñu bari ci ñoom di rekk jéem dugg ci gaal yi ngir dem biti réew la am ca napp ga jariñatul leen lu bari mu amit ay njeexital ci askan wi ndax it lu bari ca lu ñuy lekk jën lay doon keneen nga nga xam ne moom la ñu koy jiiñ di rekk licence de pêche yi nga xam ni nag ñu bari jàpp nañ ni amul benn transparence ba tax sax mu am njeexital bu bon ci seen liggéey ci loolee sax ministre des pêches et de l'économie maritime taxawal juillet ngir rek ay licence de pêche yoo xam ne toll na ci juróom-ñeent yu ñuy jox rek navire industriel yi mbir moomee nag ñu bari ci nappkat yi ñaawlu nañ ko bu baax lu ci mel ni plateforme des acteurs de la pêche artisanale du Sénégal dugg bi nga xam ne moom la ay ponkali bato yees daal di dugg ci wàllum napp gi loolee day tax rek mu daal di jur akub ya ci nga xam ne daal di tibb jën yu ndaw yi jeexital gu bon la ci wàllum koom ci askan wi ak li nga xam ne daal moom lay dundee te day mel ni daal day daal di ni lépp lu nga xam ne jën la te dara dara du Sénégal yi duñ ko am. bu ñu sukkandikoo ci boobu les plateformes kilifa yi dañoo rek war a jël seeni matuwaay ngir rek dakkal lépp luy yàq waaye tamit képp ko bëgg a jël seeni ressources halieutiques waaye tamit ñu war a taxawal ay mbir yoo xam ne yu mucc ayib lay doon ngir rek aar napp gi nga xam ni ña koy def ak askan wi dinañ ci mën a gis seen bopp bu fekkee ni sax boobu les plateformes naqarlu nañ ko tey jii Greenpeace defoon na ko ci atum 2022 ndax it mi ngi doon woo rek état bu Sénégal mu gën a amal transparence ci licence de pêche yi